mbokki internet dal leen ak jàmm seen chaîne youtube di Buzz Actu 221 di chaîne bi leen di jox ay xibaar yu wér te wóor abonné leen te bës cloche de notification bi ngir nag dara bañ leen raw suñu ay xibaar Buzz Actu 221 ci coow bi nga xamante ni jamono ji dañ nañ koy nemmeeku ca diwaanu Niger ci naka noonu sax ñu daal di woon gis ñenn si ñi nga xamante ni ñoo jiite CEDEAO ñu daal di xamle ni dinañu jël seen ay militaire ñu daal di leen yóbbu foofee ca diwaanu ci ñoom jiitu réew mu Sénégal di Macky Sall ak ki nga xamante ni mooy njiitu réew mu Côte di taxaw teem ne rek dinañ fa daal di yóbbu di bokk ci xeex mile ci naka noone sa ñu mi leen nag mu daal di def ab discours bu am solo daal di koy jagleel ci ki nga xamante ni mooy njiitu réewum Sénégal di Macky ak ki nga xamante ni mooy njiitu réewum bu Côte d'Ivoire mu daal di leen a wax rek ñoom ñi lee bu ñu nangu benn yoon benn réewum étranger bu am doole boo xamante ni nag da leen di daal di utiliser ci loo xam ne nag seen propre intérêt personnel ndax nag dañoo war a li nga xamante ni mooy te nag dañ fi jógee te waruñ fi bàyyi nag benn trace bu ñaaw ci diggante réew ma Afrique yi te nag rafetul benn yoon nag ñu fa yebal ay militaire yu fay amal guerre foofee ca diwaanu Niger ba tey nag mu ne nag kii di njiitu réew mi di Macky Sall dafa war a dal jamono ji waaye tamit nag mu daal di sukkandiku ci atum 2018 2019 ci euh, conférence de presse bi nga xamante ni nag defoon na ko mu ci doon wootee wàllum paix si jafe yi nga xamante ni nag daal di woon nañ ko nemmeeku foofee ca diwaanu Mali ba tey nag ci ay kàddoom mu premier ministre malien moomee mu ngi daal di xam ne ni réewum africain dañoo bëgg rek ñu daal di leen respecté te nag mu ngi daal di wax ni ndaw africain yi jamono ji jàmm rek rek moo leen daal di ñorote nag li nga xamante ni daal di koy weesu bëgguñ ci te benn yoon ba tax nag moom mi li daal di yëkkati yile kàddu koy jëmale nag si ki nga xamante ni jiitu senegal Sénégal di Macky Sall ak jiitum ma Côte d'Ivoire gannaaw rek bi ñu xamle ni dinañu yebal seen ay militaire réew ca réewum Niger ngir nag ñu bokk si xeex milé